asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi eh, ñu ngi leen di siyaare di leen nuyu dañoo ñëwoon fii ci kër Serigne Afia Mbacke Mokhtar eh, am loo xam te ni dañoo xaw a jaaxal lool lu nekk ci réseaux sociaux yi ci daw bari ci lool nag ñu bëgg ci ak leeral yoo xam ne ci bëgg a siq ak sëñ bi def ci ay laaj ak i tontu sëriñ bi kon ñu lay laaj daal ni dañoo dégg ñu ni sëriñ Touba eh, du nit. laaj bi njëkk loolu la sëriñ Tuubaa du nit te ah. waaw xam nga asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Cheikh Dieng bàyyi ni ci jàmm alhamdulilah. Hmm. Euh, laaj bi xam nga bari na xisa yoo dégg ci yoon wi. Hmm. te kafek ngoon ko fi indi. Hmm. <laughs> ak xisay mag mu fanaanoo xalaat. da koy fanaanoo xalaat boo xëyee am ba wax waye kessa bobu kessa bu jadd qiyas la ndax amul sukkandikuwaay te dañu wax ne lawla isnadu la qala man sha ma sha lu wóone wax dara ñu ne la am foko tek foko tek kon kum neex man nga wax lu la waye lolu loolu la ak mbiddu Serigne Touba ak waxi Serigne Touba duma nit loolu fi ko gis naa sax am ñu koy wax ndax am fi ñu koy sukkandiku du sukkandiku ndax dañuy wax dañuy def layu nu nusuus mooy texte bi lii lay tekki nga wañ texte bi ne ko nag lii ngay tekki ba bëgguma bëgguma tekki ko lii laa bëgg a tekki ko ndax am na ñoo xam dañu naan fim naa ox jubatan baanat li kulli euh, euh, ba ox jubatan baanat euh, li kullil kaw nii ak fi mu naan baana li kulli mën la hoo wilaaya kaw nii li xaali xel baraaya aaya loolu lépp ay kéemtaan lay firi Sëriñ Tuubaa dafa wane ne moom daf ne abdullahi wa xaadimu rasulihi la wax xam nga jëmm du wax la fa mu teg boppam nga bëgg ko wax leneen moom daf ne jaamab yàlla la di liggéeykatu yónent bi sallallahu alayhi wa ci biir gu ci noonu mu nekk liggéeykatu yónent bi sallallahu alayhi nekk jaamab yàlla ci la dema dem ba yàlla def ko muy kéemtaan gu tukki ci kéemtaan yàlla yi ah, ah. yonent ba sallallahu alayhi moom muy liggéey la moom nit gum nekk nit alxuraan moo na ko nettali ndax yàlla moo ne yonent bi sallallahu alayhi waxal sa gaa yi ni leen man nit laa comme yéen waaye nag jibril day wàcc ci man sunu borom ko ne xam na ne defal na Serigne Touba loo xam ne rawe na nit ñi lu toll ne li nit ñi rawe bàyyi may wala lu këpp waaye teewul nag muy kéemtaan ndax kéemtaan bi gën a rëy ci nit lay wàcc ndax seetlu ko ci yonent bi waman huwa al ayatul kubra li mu li mu'tabirin waman huwa ni'matul uzma li muqtadimi mu ne ko sa mu ne ko saabaaraam ne ko sarayta min xaramin laylan ilaa xaramin kama saral badru fii daajin min azulami kon kéemtaan gu weesuut ak nubuutu mooy ak yonent weesuut yonent bi sallallahu alayhi wa te moom mooy ngeen jim def te yàlla daf ne moom nit la comme yéen loolu la wax yonent bi ma lay xamal diggante ku dul nit ak yàlla nit képp a fi dox ku noppee doon nit moom yàlla dangay ngay a doon te Sëñ Tuubaa bindut loolu kon moo tax ma ne la ci xisa bu jàdd xiyaas la waaw jërëjëf ba tey am na luy dox ci réseaux sociaux yi ci njabootu sëriñ bi maanaam lu ci siñ bi digle ak yoo xam te ñoom ñoo koy waxe daanukat rek la maanaam eh, lu jëm ci doom doomam bi lu jëm ci doomam bi waaw mooy doomam yu góor yi lu ñu wax ñu ne ñu ni daal doomi Sëriñ Tuubaa yu góor ñi ah, mooy mooy li may faral dégg ñu naan def na ci ñu naan ñu naan def na ci doomam lu nekkul ci nit ñi. lu nekkul am na lu may dégg lu xaw a demee noonu. waaye loolu li ma la wax rek moom xisa bu jàdd xiyaas la. ndax Sëñ Tuubaa bu fekkee dafa oote yoonu jaayante. fa Mbàkke Kajoor. diggee lam ci diggee. mag ñi ànd ak moom ay rakkam ak ñeneen ak ñeneen ànd ak moom ci mag ñi. nga xam ne boobu gisaguti doom. ñuy ànd ak moom ba mu gisi doom ñu ànd di ko liggéeyal. di ko liggéeyal di ko liggéeyal di ko ba noppi koo gis. waaw bu wàññeekoo fab am lu muy fab di ko def ci doomam te defu ko ci ñooñu. kon léegi loolu lu muy niru. waaw xam nga nit day xalaat rek ndax alxuraan li muy rëy rëy rëy fii ne. boroomam xel lay waxal. waxut ak ay dof de ndax inna fi ndax ulul absar ak ulul albaab bi lay waxal mooy les intellectuels. <laughs> ñooñu lay waxal. te loolu dafa safaanoo ak yëfi sëriñ bi waxi sëriñ bi ndax fa dañuy xam ne ñun fii ñu ne ñun noo fi ne waaye sëñ buum diwut foofu bëgg ay soxnaak di bëggi doom ak bëggi koom loolu ñun ñoo toll foofu ndax sëriñ Tuubaa dafa wax ne mahat mahabbateel muxtaar say mahat mahabbateel euh, mahabbateel muxtaar sayidina lii magaani wal ahlina wal walada mahat mahabbatiya mahabbateel muxtaara saydana xubbal magaaniya wal ahlina wal waladaa xubbal magaaniya mooy maful mooy maful mi ndax moom ndax moom la ñu maxal Sëriñ Tuubaa dafa wax ne bëgg gi ma bëgg yonent bi effacé na ci man bëgg ay soxna ak i koom ak i doom Cheikh Mamadul Fadal radiallahu taala anhu am na nettali bu mënul nettali boo xam ne maa ko dégg kenn nettaliwu mu ko mu ne and nak seigne Mor Roqee ak seigne Masamba ñu fekk seigne Touba jollof seigne Touba ni duma duma ma du ma bàyyi kenn Duma ci bopam duma magi kenn seigne Masamba dégg ci bopam duma ma nijaay kenn seigne Mor Roqee Bousso ci bopam mu wan leen ni haqiqatu ilaahi bi mu am amu ci dom amu ci mag amu ci rak mu wan leen li fi ne mom jaayante koy maye Cheikh Modou Fadal daal di fab xalimaam daal di bind ne jaay guréel gi nga ma gi ñu wane ni yaa ma jur jaay naa ko jënde ko ak taalu bi lañ ma cee naroon fay def naa ko addi loolu maa gis suñ ko bind Cheikh Modou Fa euh, euh, Cheikh Abdoul wax na fii ne Serigne Touba amul doom amul rakk ñi ngi koy askanelee ci xeet yu mel noonu ñoom ñëpp dañoo jaayante woon def ni taalibe yëpp def kon bo sukkandikoo ci li seigne touba wax sukkandikoo ci li seigne Cheikh Amadou Fadal wax ak Cheikh Abdoul Ahad da nga gis ne lepp lu mu def ci ay domam def nako ci ñeneen ñu dul ay domam tam nag ndax lolu bo day xawa niru li ñi wax li nan naan naan lolu racisme lay niru te ñun seigne touba wessuna yoy lim yor la comme ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defoon Fatima. ba mu keroog ba mu ba muy ba muy oote. yow mu jox ko shariatul mutahara dafa wax Fatima ne ko laaj ma ci sama alal lu neex waaye mënu ma laa jëriñ fa yàlla dara mooy ba ko ba yàlla wàccee wa anzir ashirataka al aqrabin mu wàññiku ba muy oote euh, ca fatu Makka ba yoxtu Ridwaan maanaam jaayante ba te booba lay woote xaqiqatul xaqiqatul munawwara ndax booba dafa mel ni saaba yi dugg nañ ci lislaam waaye ba tey des na. ba yàlla ne indi lazina yubayi'unaka innama yubayi'una allah yadullahi fawqa aydihim loola ba tey amul exception kon Serigne Touba fi mu ne daal il faut ñu dellu jéem a dellu ci ay waxam ak mbindam loolu moo nuy faj de noonu mu rek de buñ ko defut doon faju de kon euh, loolu laa ci am ci lu may leeral audio bi nag comme ni nga ko amee rek ni ni ngi ñaan képp ko jot nga nga jol nga jàllale ko ndax lu baax rek tax ñu di ko def ngir yàlla yonent bi ah. uh, wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu afi mbakki maxtaar ah. ok jërëjëf sëriñ bi loolu leer nañ hmm. ñu àndoon ak uh, seen mbokk sëriñ Afia Mbacke Mokhtar muy lu am solo hmm. ci dégg-dégg ni murid yi ak uh, ni ñuy déggee mbindum sëñ bi ak jàngale yi hmm. mu wan ne ñu dañoo war a delluwaat ci li sëñ bi li ñu sëñ bi jàngal delluwaat ci li sëñ bi ci njàngalam sëriñ Touba bu ñu ko defee rek bu soobee yàlla dañu am si dinañ dinañ am ak tawfeex bu baax a baax a baax waaw xam naa jërë ngeen